mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ci seen site bu am solo bi di seen info point net wante tam seen chaîne youtube bi di sene info international ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewlu tey nag dañu leen bëgg a xamle ak kii di Mouhamadou Mahi Touré nga xam ne kon moom moo remporté lii di grand prix Sénico de récital de courant bu 2021 te ñu ko doon amal démb fële ca King Fahd Palace Mouhamadou Mahi Touré baayam mu ngi tudd Modou Touré yaayam tudd Ndeye Khady Badiane moom nag euh, Mouhamadou Mahi Touré ñu ngi ko tuddee sax kii di Cheikh Mahi Ali Cissé nga xam ne moom mooy porte-parole bu Medina bàyyi Mouhamadou Mahi Touré nag euh, moom fameem euh, ñu ngi ba ñu ngi kon bàyyeekoo fi ñu naan laamaram dëkk bu tudd Lamaram nekk ci département Nioro ca Kaolack Mouhamadou Mahi Touré nag 2008 la gane àdduna ca Medina bàyyi moom nag nee nañ dafa teel a mokkal lii di alquran ci ab diir bu gàtt sax nee nañ daal si ñaari at. ak genn wàllu kon ci la mokkal alquran ki nga xam ne moo ko encadré kon ki ko jàngal moom mooy magam bu tudd El Hadji Touré moom muy le kon di Mouhamadou Mahi ture ñu ne élève la sax ba léegi kon nekk na élève kon ci côté français nekk na élève boo xam ne am na niveau bu baax ci école primaire française école école primaire française kon bu Cheikh Ibrahim Niass euh, fële ca Kaolack kii di yaayam. Tindé Khady Badiane nee nañ moom tam nekkoon na koo xam ne ku teel a mokkal alxuraan la ca ba muy ndaw moom moom la di yaayam sax kon euh, fi mu nekk nii ñu ne ab maîtresse la bu arabe ci benn école publique bu nekk foofu la ca Kaolack. fi nga xam ne nag foofu la Mouhamadou Mahi fekk mbaax muy euh, dëkk boobu boobule ñu naan laamaram ñu ne moom nag dëkk la boo xam ne dëkk bu ñu ràññee la ci mbirum njàngale alxuraan kon ci Saalum Mouhamadou Mahi Touré 2017. kon euh, moom moo nekkoon lauréat bu grand prix international Cheikh Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass kon bi nga xam ne ñu ngi koy amal euh, foofule ca Kaolack ba léegi tam euh, moom muy moom mii di Mouhamadou Mahi ture ne moo nekkoon vainqueur prix de la fondation Mohammed VI ci année deux mille dix-neuf moo nekkoon itam candidat bu Sénégal pour prix bi ma leen wax léegi prix euh, prix prix fondation Mohamed VI moom moo nekkoon candidat au niveau international euh, bu Sénégal ci bi nga xam ne kon compétition bi nga xam ne ñu ngi ko waroon amal euh, fële ca Gabon wante mujjeewul am ndax jàngoroy coronavirus bi kii di Mohamed Mahi Cissé nag kon nga xam ne moom moo remporté grand sixième édition bu grand prix Sénico bu récital di Coran. nekkoon na itam lauréat bu prix de la ligue islamique mondiale boo xam ne kon Sonico moo ko organisé woon kon daal mën nañ jàpp ne Mouhamed Mahi Touré donte ndaw la wante moom nekk na ko yàlla may te it miin na lool lii di ndaje yi nga xam ne kon ay ndaje alquran la. lii ñu ñëw tey seen teewlu rafetlu seen teewlu.